jërë ngeen jëf bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jili bi Birahim Ndiaye mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax fii ñu leen daan nuyoo ci wasaare làmb moo xam fépp fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey sa foo wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu gën kaa kawe ci nuyoo gën kaa màgg ci nuyoo muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barkatu mbokk yi ñuy ñaanal képp koo xamante ne caabi dalaa féete ginnaaw yàlla suñu borom génnee womataat la ba nga delluwaat ci société bi ba lépp loo xamante ni moo la fa dugaloon yàlla boo ca delloo mbokk ñi nga xamante ni dañoo feebar tëdd ci hôpitaux yi ak ñi feebar tëdd ci kër yi yàlla na suñu borom fëggaat seen bopp ba a dellu si waat ci li nga xamante ne mooy seen activité ñi nga xamante ne nag yàlla suñu borom dafa dogal ñu jiitoo ñu baar sàq ci suñu néew bopp yi ak mboolem jullit ñu ngi ñaan yàlla leen suñu borom yërëm taxaare leen àjjana ci àjjana yi firdawsi at wu bees Baye Jili Père Birahim Ndiaye bii mooy suñu première émission ci deux mille vingt et bi may ñaanal Père Birahim yàlla na suñu borom guddal fanam lool te mu ànd ak wér ba lépp loo xamante ne mbébét la am na ko yàlla na suñu borom kàttanal ko dooleel ko ndax vraiment mu ngi may dooleel mu ngi may conseiller mu may jàppale Père maa lay nuyu bu baax di la siyaar. waaw jërëjëf maa ngi auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Mhm. rabbi ishrah li sadri wa yassir salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk yi internet yi nga xam ne ñu ngi sàppoo site bi tudd Wassare Lamb mm-hmm. ma di leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla na jàmm nekk ci yéen nekk ko ci ñun. amiin te di leen ñaan at mii ñu nga xam ne dugg nañ ko muy premier janvier tey le deux janvier. Mm-hmm. Euh, deux mille vingt un. Mm-hmm. yàlla lay dàq ci at yi ñu weesu yéen yéen ñi ñuy seetaan ak mm-hmm. yéen ñu déglu ak yi ñuy safoo yéen ñëpp mm-hmm. képp koo xam ne ki yaa ngi seetaan wasaare rek mm-hmm. maa ngi lay ñaan at mi yàlla na dàq at yi di yëpp at ñëw at yi paas yàlla na dàq at mi di ñëw yàlla na dàq sa at yëpp at mi ngi nekk nii yàlla na atum teraanga ak sutur ak atum wér Mm-hmm. jàngoro ji nekk fii lëmbe ci monde bi it yàlla na ko fi yàlla jëlee. Mm-hmm. waaw yàlla na ko fi jëlee ba ñu toog di ko nettali. amiin waaw kon nag di kontaan ci toog ak mm-hmm. ah, wax dëgg yàlla sama doom nga xale boo am yar nga xale bu am teggin nga. di gërëm waa groupe bi yëpp nag. di commencé ci ñi nga xam ne moom am laa bokkal nekk fii yëpp. muy Bas muy Adama muy Kaagu muy. Euh, Ousin. ak xale jigéen yi ñoom ñëpp. Euh, maa ngi. souhaité ñëpp meilleur ko bonne heureuse année maa ngi leen koy ñaanal mm-hmm. di leen ñaan jàmm ak xéwal mm-hmm. vraiment di bëgg lool nag ci di toog ak yow mm-hmm. waaw jërëjëf jërëjëf père Birahim sama papa la sama xarit la mais père macha allah euh, gis naa ni temps yi moom yaa mooy yaa ngi bëgg a gaañ ci sañse yi keroog indi nga bees tey indi nga verte macha allah père temps yi allah <laughs> waaw waaw xam nga euh, fii Ndakaaru tàngoor bi dafa metti <laughs> uh-huh. bu tàngoor bi jotee xam nga sol yëre yu xaw a diis tuuti day jafe. dëgg la parce que yëre bu nekk ak jamonoom. Mm-hmm. am na yoo xam ne doo ko mën a sol ci tàng parce que ñàkk beeg tàngoor bi. dafa bari te it waaw bas wutu la ko ñu climat. waaw ah, te déclaré nañ clim ba sonn clim bi ñëw. waaw mais ah, xam naa rek ndànk ndànk ndànk ndànk koy jàpp ko la. ci dëgg la xam naa yàgg yàgg li indi dina indi leneen. Uh-huh, uh-huh. yàlla nañ yàlla defal fekkee tal rek. waaw loolu la àddina moom. Uh-huh. noonu rek la raam raam ba keroog ngay jóg taxaw rek. Mm-hmm. waaw. jërëjëf kon deux mille vingt bi nga xamante ni ci la génn doon at woo xamante ni ñu ngi ñaanal deux mille vingt et bu góorgóorloo tuut rek raw deux mille vingt deux mille moom yàlla nañ koy waxtaanee yàlla bu benn at ci àdduna melati ni deux mille vingt perte yi ñu buggoon waxtaan tuuti ci làmb dellu siwaat comme niñ ko daan defee li njëkk mooy sur trente et un décembre jékki-jékki naa siif dem kër Père Ba fekk fa Papa parce que am na daje yoo xamante ni bu jot ñoom dañ ko fay def. ma fekk ko fa ñu waxtaan tuuti mais dugg nañ ci huis clos bi nga xamante ne làmb moom la ñëpp di waxtaanee ba xam mën naa ne wala mënatula la ne. Euh, per Ba euh, Papa Sow wax na ci mais lim ci wax mooy moom bu sañoon ñu def huis clos bëre. Mm-hmm. huis clos ci làmb Père nan nga ko gisee ak waxu Papa boobu. waaw xam nga wax moom wax bu hmm. ci nekk da ngay na nga gisee rek ngay waxee ak la la arrangé dëgg parce que mbër am na lu ko arrangé hmm. euh, am na lu arrangé promoteur dëgg la ñoom ñaar nag comme promoteur mooy génne xaalisam di ko dugal ci làmb ji hmm. bëgg ci bénéfice mooy xool la ko arrangé mu dugg ci parce que huis clos ñun mosuñu koo xam ci làmb mosuñu ko dégg sax dégg te amuñu fond bu mag boo xam ne bi tey jii nit ñi dañuy mën a bañ a seetaan si làmb ba pare ñu mën a fay mbër mi dëgg la mbër mi nag moom li ko gën a ñor rek mooy na bëre pare jot xaalisam Mm-hmm. loolu rek a teg ci boppam. te loolu soo ko defee promoteur bi nga xam ne bu bëggee boo duggalee ñaar dërëm bëgg am fukki dërëm. Mm-hmm. wala bu duggee fukki dërëm bëgg am fukk ak juróom. Mm-hmm. maanaam fay borom ba ko desee dara kooku Piccolo arrangé wu parce que ñun xamuñu Piccolo. léegi moo tax li nga xamee ne nii kenn ku ci nekk nag da ngaa war a xool la la arrangé moom parce que promoteur bi tam. dégg nga du sànni xaalisam. dégg nga bu fekkee ne am na ci loo xam ne da cee am dara. dina ko mën a arrangé bu ci amul dara du ko dugal. dëgg la dégg nga mbër mi tam bu daanee fay bu daanoo fayu. Hmm. su fi kilo amee dana fay moom daal na bëri rek bu bëree bu daanee am bu daanoo am. Hmm. bu mu xool loolu rek. Hmm. su xoolee ne man mii kat sama intérêt rek laa teg ci kanam boo léegi promoteur bi dootu ko tëgg. dëgg la te promoteur bu tëggu làmb dem de. làmb mbër yi dañu war a jàppale promoteurs yi. suñ jàppale promoteurs yi dee ñu bëgg a bëri dootuñu bëri. te toole ju du la fi xaar temps yàgg naa leen ko wax. doole du la fi xaar temps bi du parce que mbër bëri bëri bu bis bu mu bëriwul rek perte na ko. Mm-hmm. xanaa beneen kay waaye boobu dimanche bu mu weesu rek weesu na ko. Mm-hmm. kon na fexe ba ñaanal promoteur bi nga xam ne bii mooy financer xaalisam di dugal xaalisam ngay am dara. di ca tedd nanga fexe ba moom it mu am dara. dëgg la waaye bu fekkee sa bopp rek nga xool xooloo promoteur bi. Mm-hmm. ah loolu kat loolu de loolu moom. loolu moom jëmul kër jëmul kër nañ jàppale promoteurs yi seet nu ñu mën a organiser làmb ba ñoom ñu am dara mbër mi di am dara la loolu mooy doxal. Hmm. mais bu fekkee ne benn côté rek kay am dara beneen bi du am dara moom loolu moom ça ne va pas. xaw a yéeme daal. da du dem sax darul dem. Hmm. darul dem. Euh, Père Papa am na lu ñu ci jot a wax sax brosser ko tuuti ma ne ko euh, làmb pour man huis clos bi ak ñàkk a doon huis clos nit ñi di dugg si ci làmb ji yëpp euh, côté bi ma gisee mooy mbër bu dugg see ci làmb ambiance bi muy soxla moment bi muy tuus la. mais moment bi arbitre bi di boole ñaari mbëri ci digg géew bi. Mm-hmm. moment boobu sa adversaire rek nga tal. talatoo supporter. Mm-hmm. talatoo dara euh, yaa ngi concentré wu ci sa adversaire euh, moment boobu ñu war a indi ku mel ni benn combat euh, teg ko ci digg géew bi stade bi kenn nekk fa mënul jouer dara ci xelu mbër mi. waaw mais xam nga loolu moom loolu ci ku bëgg a bëri waaw mën a bëree waru jouer sa xel dara. Mm-hmm. waaw loolu ci dara parce que xam nga dafa am dinaa la wax lenn. am na loo xam day dooleel mbër. mais am na loo xam day wàññi mbër. Hmm, dëgg la lan mooy dooleel mbër. lii dooleel mbër nga dugg si tribune yëpp jóg taxaw. Hmm. ñu tàccu la ba nga sa xol neex ba sa xol doole nga sa xol neex tey tàcc yu takkar naase. Hmm. tàcc yu faral loolu luy dooleel mbër la gis nga boo fi boo ragaloon sax dootoo ragal. dëgg la. boo amul boo amuloon fit ci waa ji sax ñi ma woon mbër mi sax. da nga ko ñemee ndax doole ji ñu la dooleel. dëgg la mooy succès bi ñu la may. ak Euh, tàcc yi ñu la tàcc yi ñu la mm-hmm. loolu encouragement la mm-hmm. loolu day yokk doole bër dëgg la waaw muy benn mm-hmm. waaw luy luy luy luy kiyal mbër luy doo wàññi doole mbër wàññi doole ay yooxu mm. nga ah yatam baaxul nga dugg si rek foo jëm ñu ne wuu day dooleel mbër day day wàññi doole mbër dëgg la waaye nag ni muy doole wàññi doole mbër nag waaye dina dina bu dee mbër mu nar am jom it na tax nga gën a am jom ne kii tey yuuxu yi ma yuuxu nii dégg nga ak tàcc ma ni ma toroxoon dinaa leen wan ne leen tey man nag naka ma la dinaa mën a mën ngaa dëggal sa bopp nag bu boobaa tamit loolu nag loolu nag jom buy nekk ci nit la. Mm-hmm. waaye bu fekkee ne léegi amoo joom jooju day néewal sa kàttan. Mm-hmm. day néewal sa kàttan donc da ngay découragé quoi. dëgg la te te nit looy jum rek nit looy jëm rek dañu cee da nga encouragement ca da cay dooleel nit. Mm-hmm. mais bu ñu la découragé rek wàññi nañ sa doole. waaw euh, père ñu ñëwaat ci li nga xamante ni mm-hmm. mooy programme làmb mm-hmm. ñu bari coow nañ wax nañ mbër génn nañ mm-hmm. euh, jiital ko ci Boy Niang keroog point de presse am bi mu def jiital ko ci Gris Bordeaux association des lutteurs en activité ñoom it bi ñu def euh, tey fi mu toll ni ñëpp ñu ngi déglu parce que nee nañ diggante bi fii ak le cinq janvier làmb dinañ xam fan la jëm père làmb fan la jëm waaw làmb fi mu jëm daal mooy mbër euh, euh, yi lu ñu bari bari doole gouvernement la lépp doole. dëgg la. Macky Sall bu ne lii ma tey kenn du fi bëri kenn du fi bëri kenn du football kenn du football. dëgg la parce que armée bu wàccee waxuma armée rek waaye police bu wàccee. Hmm. gendarmerie wàcce rek kenn du bëri. xale yooyu dañoo pasté fu. ak nu ñu pasté wu laa wax. Hmm. booba gendarmerie daa wàccul police wàccul. laa wax ma ne xale yi gendarmerie dañoo pasté. ah mu ngoog hmm. voilà pasté bu googu ñu def nag. ànd ak ndigal. Mm-hmm. ànd ak ndigalu président de la république loolu ñu ci mën dara kenn mënu ci tus bu ñu nee toogal doo génn kenn du génn ah, kenn du génn wala ku génn di nga digaale ñoom gis nga nguur mm-hmm. kenn du xuloo ñoom wala ngay bëgg a xeex ak ñoom wala ngay xuloo ñoom wala nga di leen jaay kàttan mm-hmm. amul parce que tey kon président daal bu nee nangam lii laay te nangam lii laay damay askan wi nangam laay def bu boobaa loolu kenn mënu ci dara doo jógee daaw moom mbëri nañ ànd yar ak teggin te xool ne lii événement bu fi dikk dong la. Mm. ñaan yàlla mu teggi ko jàmm rek a fi am. Mm. waaye tey dañ leen def conférence nañ daje nañ def bu tuka palais nañ def marche nañ def lii bu ñu marché def dara dañ leen di delloo dugg ci gré bi. mais père nag boobaa dañ ci am problème bu sérieux mais mais père nag njabootu làmb am nañ droit ñaan seen njiit ah. ki nga xamante ne moo leen fi toogal ne ko baal ñu ubbil ñu làmb ji ñu bëri dañoo bëgg a bëri loolu kay seen loolu kay xale yi nag loolu lañ def daal loolu nag loolu laa wax loolu kay mm. d' accord nañ loolu koy ku may seetaan ak ñu bëri d' accord nañ ci mm-hmm. dégg nga dem ñaan ne président ñun kat dañoo war a bëri mm. football bi kat mu ngi commencé waaye ñun ñoom na football yi def nag waaye ñun mënuñu koo def mm-hmm. parce que huis clos tubaab tubaab yi nangu nañ koo def mm-hmm. footballeur yi mën nañ koo def mais bu làmb amul huis clos parce que kenn jiri day yor cent mille francs dem tëgg làmb day yor un million wala deux millions dem jënd licence am ñëw tëgg làmb pour bëgg ca dara. Mhm. dégg nga ma la. Mhm. boo bu ca bu bu lu bon bon bon deux million yooyu mu tegal ci cinq cent mille mu def poosam wala un million mu teg poosam su ko defee mu jox waa dina avance parce que boppam lay liggéeyal. Mhm. football nag maanaam monde bi lu lu ñëw Sénégal lépp bokk la. li Sénégal bokk yëpp. dégg nga dégg nga euh, gouvernement def ci dugal loxoom. Hmm. mais loo xam ne lii individuel la kenn ku ne sa intérêt bopp ngay daw. Hmm. bu boobaa rek gouvernement bu cee jàppit na mun jàppee ci lu mbooloo bokk mënu koo jàppee ci lu jiiri bokk moom kenn. Hmm. dëgg la wala fel la dëgg la père. waaw nañu bàyyi xel ci loolu. nañu bàyyi xel ci de moom ca làmb individuel la làmb bopp sa bopp la. promoteur bi dafa yor xaalisam di wut si xaalis. niroo wala gouvernement bi nga xamee ne bii ñëpp dafa li muy def football ñëpp ko bokk. maanaam équipe nationale bu doon football tey jii. Mhm. dégg nga wala club yi nga xam ne bii te amuñu feebu ja dañuy ñëw dañuy football lu ñu pour gagner pour yóbbu seen kër. Mhm. du benn. dafa am yaa danaa différencement euh, euh, différence euh, différent bu ci am. Mhm. différent boobu nag foog ñun ñu comprendre ko. xam ne ñun sport individuel la ñuy def. boo xam ne sunu poche lañuy ñuy pour am dara. loolu nag bu amee day foog nañu teey xale yi nañ yaru te teey te tekkaaral. ñaan yàlla mbas mi jóge fi rek. man loolu laa gis. léegi per li ma bëggoon xam en tant que responsable écurie. Mhm. Euh, ànd nga ci say mbër bëre ci huis clos wala àndoo ci. waaw mais àndoo ci man du man maa ci ànd ñoom parce que xaalis bi ñoom la kurpe ñi ñoom la. Mhm. écurie bi. Mhm. bu ci dee amit tuuti la ci am. dëgg la wala amu ci dara. parce que man amaguma sax mbër muy bëri ay millions. gëj naa ko ci Pape Mor Lo ak Saloum Saloum gëj naa ko ci am ci boobu. xale yi ma amagos néew nag kay tey ci ku ci nangoo bëri huis clos ànd naa ci ak ku ci nangu la bëre ko bëre huis clos yi du ma la forcer ne demal bëre huis clos. Mm-hmm. du ma la ko forcer. Mm-hmm. parce la nga ci am du man la ko jox. dëgg la promoteur bu fekkee promoteur bi nangu na la ko ne la kaay ma huis nga d' accord ànd na ma ci. Mm-hmm. bu fekkee ne d' accord promoteur bi d' accord ci man ànduma ci. man loolu laay loolu laay dox ñoom. léegi huis boobu père est ce que mënuñoo ñaan euh, ci sama gis-gis bu gàtt. que ni làmb fi mu toll nii am na fu mu toll stade arène nationale. Mm. ñu ngi toll na ci vingt mille places. Mm. tey ñu jox ñu sept mille places yi. Mm. wala cinq mille places yi pour ku ñëw jël mesure de barrière yi ñu ñu ñu mën a def làmb billet bi bu fekkee duñ ko doon jaay deux mille. ñu def ko trois mille. wala mille cinq wala wala trois mille cinq cent pour ñëpp mën a ñëw dugg ci làmb. ku ne gis ci sa bopp. waaw loolu lépp mooy da nga ñëwaat ci li ma la wax rek. li ma waxoon nga mooy. Mhm. li ma la wax de ne si promoteur bi dugal xaalisam ci wut ca dara na seet lu koy arrangé rek. dëgg la promoteur bi li koy arrangé loolu lay dugal. mais loo xam ne du ko arrangé parce que kenn yoru ci machine buy defar xaalis. machine bu leen defar xaalis bu ñuy fay amul. Mhm. dañuy jël seen ñaar dërëm pour bu am ñetti dërëm jël seen fukki dërëm pour am ñaar fukki dërëm. Mhm. loolu la ñuy wut bénéfice la ñuy liggéey la boo xam dañ ci wut pour am ci dara. du question làmb leen neex rek. Mm-hmm. bëgg nañ ko rek yor naa samay million kaa ma def ko ci làmb ji pour sànni rek déedéet dañ ko def pour am dara. Mm-hmm. loolu bu leen arrangé ñoom ñun koy fekk si na leen ci mais bu fekkee arrangé wul promoteur bi làmb du am. Mm-hmm. promoteur yi nga xam ne ñoo yor seen xaalis seen bailleurs yi ñooy bailleurs de fonds yi nga xam ne ñoo yor seen xaalis di ko dugal si. foog ñu ubbi leen loo xam ne ñoom dinañ ci am dara. buñ ci amul dara kenn dugal dara maa la wax li doo dégg làmb mukk ci àdduna man maa la wax. dëgg la Père moment bi may wax ak yéen mbokk yi euh, kii di promoteur bi di jamaïcain promoteur bi ngarale ci ñaari réew yi. Mm-hmm. actuellement mu nga Gambie. Mm-hmm. Euh, di waajal événement bu rëy boobu. Mm-hmm. mu dox ci diggante Leket Baara ak France. Euh, moment bi dem na nag pour wuti date. dem na pour préparer làmbam. pour de làmb Gambie moom jamaïcain pare na pour pour tàmbale. ndax xam naa ne làmb Sénégal gannaaw tàmbalee guñu dem na gàmbi préparer wu ji loo gisee loolu. waaw c'est que ku ci mëntu tëgg fii tamit. Hmm. ah Gambie li nga xam ne Sénégal mënu ko def Gambie mën koo def. Hmm. ku ci mën a bëri ji Gambie dem Gambie parce que moo gën toog di xaar rek. doog di xaar amul lu njëriñ. mbër dooleem la yor kattanam la yor moom combat la yor. Hmm. su mënta am fii te Gambie ñu ñoom ñoo frontière waaye bokkuñu ay culture bokkuñu doxalin. ñoom mën nañoo bañ dara ñoom ñu nangu ko. mën nañoo nangu dara ñun ñu bañ ko. ñoom su fekkee nangu nañu li li nga xam Sénégal lañ koy ba ñoom ko dem bëri ku ci nekk takkal sa ngeen mën a wuti combat foofu soo ba ma am combat boo xam ne nga ci am dara nga am ci dara parce que bi amul dara ci amul njëriñ ci mbër mi mm-hmm. mbër bi toog ba jë bëri du sans du moom mm-hmm. mbër moom fu mu toll di tooyal xaftaan rek di bëri am dara mm-hmm. moom moo moo moo mooy avantage am mais su bëriwul da amul dara moom kooku pertement bu rëy ci moom parce yàgg naa ne wax ne doole du la fi xaar temps bi du la fi xaar jamono bi du la fi xaar dimanche boo bëriwul perte nga ko kon bëri rek ci am dara ah. samayke loolu mu def baax na xale yi tamit nañ dem fekk ko foofu ku bëgg a mm. bëgg bëri war mm. su koy gàmbi ubbi nañu bunt bi kay bi bi ñoom xalaaj ko ñoom dañuy bàyyi làmb ji na mm. muñ ko bëggee mm-hmm. ah ku bëgg bëri demal foofu dëgg la ah. am na solo Père Birahim ah. euh, ma lay jaajëfalaat bu baax a baax mm-hmm. di la tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqliko waa jërëjëf xam nga waxtaan ci mbiru làmb événement bi moo koy indi mm-hmm. parce que ñun mën nañu toog di waxtaan suñu xalaat mais événement yi mooy dox moo ñuy jox yoon wi ñuy mën a waxtaane pour di mën a sànni suñuy xalaat jaw loola mhm. mais tëb rek bu di wax tamit ci loo xam ne xëy na ñu ko dégg luñ ci am njariñ mhm. loolu tamit du suñu avantage mhm. moo tax événement yi ñuy ñaan mu ubbi bu ubbee ñun ñëpp la ubbi parce que làmb bu doxee du promoteur bi rek lay doxal dëgg la dégg nga dina doxal ñu seetaan dina doxal internet yi ciy liggéey dina ko ñun ñi nga xam ne ñu toog di analyser combat yi ñun ñëpp ci gis ku yaa ci gis sa bopp dëgg la moo tax làmb ñun ñëpp moom euh, ubbi rek fii ne tey ñaan affaire bi jóge fi rek ko mm-hmm. te jullit ñaan rek la am. ñun yëpp nañu wàkkilu ñaan suñu borom. Mm-hmm. adduwaa muqul ibada mm-hmm. ñaan mooy yóoru euh, maanaam yóoru xamu nu ko ala baxee daal. Euh, daal mooy yóor yóor yóoru kii quoi. xam nga nu ko mën a firee daal. adduwaa muqul ibada daal lañ la am. a sut àll ba ngeen firil ma ko loolu. ñaan daal lu am solo ci doomu aadama ab fu mu nekk day ñaan. Mm-hmm. yàlla yàlla yàlla teggil ñu fi mbas mi mm-hmm. teggil ñu fi nattu ba léegi la ñu bëggoon yëpp yàlla defal ñu ko te ñu am ci njiglaay mm-hmm. loolu daal moo jëra ñaat maa ngi gërëm waa internet yëpp ñi nga xam ne ñu ngi safoo wasaare di kontaan ci yëpp gis naa ne gaa yaa ngi dugg si bu baax nag wax dëgg yàlla ñu ngi xool analyse yi di appréciation yi tamit wax dëgg yàlla ñu ngi koy def ñu ngi leen sant di leen ci gërëm képp koo xam ne ki àndoog ñun ci xalaat tamit contre la nga xam ne àddina gis-gis moo dul benn dëgg jël gis-gis doon benn mu ko ci àdduna parce que bu ñu doon jaay ay piis ay couleur lu mat cent couleur fii tey jii hmm. mën naa ñëw man mii tey tànn bi ma neex hmm. yow nga tànn bi la neex hmm. su euh, sa copain bi baaba baaba maa ngi koy nuyu de passage waa Espagne waa copain yu mu bokkal nekk foofu yëpp waaw di leen bëgg waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëggee ñoom maam Cheikh ak ñëpp dégg nga ñoom bu ñëwee dañuy xool couleur yi leen neex dëgg la loolu mooy àddina quoi kon yow miy wax tamit bul yaakaar li nga wax rek loolu rek nga war a am toujours déedéet ko da wax ba pare ku ne gis ci sa bopp. dëgg waaw kon nag sant nañu gërëm ñëpp. Mm-hmm. waaw di gërëm ñoom Kako ñoom Bachir ak ñoom Adama ak ñëpp ak xale yi ak ñoom Ousseyn ñëpp. Mm-hmm. Eh, yàlla na yàlla def fi jàmm ak sutura. amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf mbokk yi Père Birahim la woon ak Baye Djili ñu leen di jëfalaat bu baax a baax a baax di ñaan rek yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko mboolem jullit.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 ñi ma yor